ñuy wéy di topp ci xibaar yi ah, ñu wax ci jamono ji ak coronavirus bi lëmbee ci réew mi ba tax na ministre de l'intérieur génnee ab arrêté wala boog fàttali arrêté bi nga xamee ne jëloon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2021 bi ñu weesu di fàttali nag ne col ka masque bi ah, fépp lañ ko war a def ci biir réew mi ak bërëb yi nga xamee ne day am ay mbooloo ba tax na kon communiqué bi nga xamee ne kon jot nañ ci di fàttaliwaat bu baax a baax ne sol masque bi lu obligatoire la ci service public yi maanaam ci administration yi waaye tamit ci service privé yi waaye tamit ci marché yi ak bépp bërëb boo xam ne day am ay mbooloo képp koo xam ne nag euh, sàmmonte ak loolu communiqué bi mu ngi firndeel ne ay daan dina tegu sa kaw wax ci li nga xamee ne moom mooy euh, coronavirus bi ak nu mu yokkoo jamono ji ci biir réew mi ba tax na famille omarienne ñoom ñi nga xamee ne mooy julli tabaski bi ren duñ ko def ci mbooloo di décision nag boo xam ne jafe woon naa jël lool xalif bii di Thierno Madani Tall moom Cheikh Omar Sy bokk ci njaboot gi li mu xamle moom mooy li tax rek ñu def ko ngir fexe ba coronavirus bi du law jaaree ko ci julli ayit bi Cheikh Omar Sy la ñuy déglu. dogal bi am na lu lu am la parce que le xalif Thierno Madani Tall Euh, ba mu waxtaanee ak euh, njaboot bi surtout ak euh, frère am yi di Thierno Macky kii di Thierno Seydou Imam mosquée bi dañoo jël ndigal ne li gën tey mooy bañ a am mbooloo ci tabaski bi ndaxte tey feebar bi mu ngi law law bi muy law nag mu ngi indi jàngoro ji jàngoro ji mu gën a am doole ci biir dëkk bi presque am na lu toll nii ñaari téeméer ak lu tegu ci ay cas loolu nee na nag bu amee bu ñu amee rassemblement bu mag ci ci dëkk koy gën a yokk rek loolu nag moo tax mu jël ndigal mu ne ne famille bi année bi ñu ko célébrer di ñaan nag ñëpp ñi nga xam ne dañ ko doon jullee ak njabootam ak njaboot yi nga xubéeru ci moom euh, nañ ko jullee seeni kër xam ne du décision bu yomb ci moom du décision bu ko neexee tamit mais la ñu gis ci feebar bi nu muy lawee ak nu mu sonnalee euh, service de santé nu mu sonalee hôpital yi ni ñu gisee tamit ne tey euh, médecins yeeg ñëpp sonn nañu mu ne coono boobul moom li ci war ci li mu ci moom moom ci ndigalam moom mooy bañ leen teg beneen coono ci tabaski bi ah du comme yàlla def na fi lii moo fi am nañ ko nangu du ku nekk toog sa kër célébré ko.